بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhaanahu wa taala ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne moom suñu boroom rek mooy ki ko jagoo ñu ngi julli di salmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi dellu ci waat nañ ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ma koy fàttalee ci tàmbali bind bu ne te wala azalu ukarrir xam ngeen ni waxtaanee dund saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la min al ahamiyati bi makaan waxtaanee dundu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo sa foo ko takk romb na la ko waral bokk na ci mooy xam ngeen ni saxaaba yi ñooy taaliba yu njëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni suñu borom tànnee ab yonenteem noonu la ko tànnalee ay saxaabaam aw góor ak aw jigéen woo xam ne suñu borom tagg na leen lu dul benn yoon ci téeréem bu tedd bi suñu borom gërëm leen te fekk ñi ngi doxal seeni tànk ci kaw suuf loolu ay manaqib la yoo xam ne nit ki mënta am ci ay ngëneel lu mu toll fii ci kaw suuf radiyallahu anhum ajmain jàpp naa ne tey ci yokkukaayu ngëm yàlla yi moom déglu waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na te bu ca gën a rëy li ko waral mooy dañu toll ci jamono joo xam ni ay modèle dañoo jafe pour nit ki am ku mu teg ci kanamam di ko roy ci ak mbaa di ko roy ci njub di ko roy ci sellal loola dafa jafe lool moo tax al imaamu zahabi rahimahullah téeréem bu am solo boo mu tënk gën a gàtt siira alamin bala muy téeréem boobu nga xam ni moom la tuddee tazkiratul xufaad ndax xam xam ngeen ni imaamu zahabi dafa taalif ab téere bu mag tuddee ko siyaru alami nubala nga xamante ni la ko tàmbalee te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba ya ak taabi'un ya ba ci jamonoom boo demee ca mu jëlat ba mujj am na te ñoo xam ne sax jàngal nan ko mu def ko seen dund kon ca jamono yonente bi la tàmbalee ba jamonoom ba mu ca paree dafa taalif beneen téere tuddee ko tazkiratul xufaad tazkira tazkiratul xufaas mooy fàttali gaa yi nga xamante ni ñooy kaawteef ci sunu borom yi ci mbaax ak njub mu seet ña gën a siiw gën a ràññeeku ci saxaaba ya mu tarjamaan leen foofa boo ca delloo ci téere boobu dafa wax du am solo mu ni fi mu ne nii day saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg leen bëgg gis wala nga bëgg a gis ñu ni mel ni ngay def mooy da ngay wàq biir suuf fekk fañ leen suul mbaa nga dellu ca téere yi xool fan lañ bindal lan bëgg a wax foofu mooy mënatoo gis ci kaw suuf ku mel ni ñoom xanaa kay nit day jéem rek ba boo ko xoolee xelam dëj daj ñooña ndax ni muy góorgóorloo yàlla suñu borom defal nu loolu kon xam ngeen ni saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab lim lañ bu bari mbokk yi amaa na ñun tey lim bu néew a néew a néew a néew a néew lan ci dégg sa biir lim bu néew boobee ñu tuutee tuutee tuuti lan ca xam waaye mbokk yi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay téeméeri téeméeri junni leen ay téeméeri téeméeri téeméeri junni saxaaba yi mat nañu la cay firnde mooy Makka la fa nekkoon Madina la fa nekkoon Quba la fa nekkoon ak dëkk yi nga xam ne yonent bi jot na faa dem ak mbooloo yi jot a ñëw ci ida jaa nasrullahi wal fath bi mu wàccee di teet yéen ñu tuddee amul wutuut nga xam ne daanaka ba yonent bi faatu gis bu nekk ak caravane bi ñëw nekk ay gan te mboolem ku ko gis am ak moom ab jataay te gëm ko te faatu ca da ngay tudd saxaaba jàpp naa ne loolu bu ñu ko waxee borom xel rek même boo xamut lim ba di nga xam ne lim ba bari na lool. keroog xajatul wadaa muy ajam googu nga xam ni moom la njëkkee moom la mujjee jàpp naa ne la fa teere woon seen mbooloo jéggi na dayoo kon saxaaba yooyee jàpp naa ne dañ koy wax ba sonn rek bàyyi wala ñu wax ba dund gi jeex ñu yam fa waaye mënuñu leen a jeexal suñu borom yi xam-xam nag taalif nañ ay téere yu bare bari yoo xam ni dañ koy waxtaanee saxaaba yéen soo xam nga xam boo ca delloo wax dëgg yàlla am na tur yoo xam ni buñ la ko tuddalee sax da nga naan guléet ma dégg tur wi ni mel te fekk kooku saxaaba yi la bokkoon kon tey dellu si waat nañ ànd ak yeneen ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Xaalid ibnu lwalid sayfullahi almaslul Xaalid ibnu lwalid sayfullahi almaslul jàpp naa ne day su ma fàttalikoo su ma fàttalikoo damay wax ni li ñu nar a dal ci dundu Xaalid ibn al Walid bi ñu dalee def dundu saxaaba yi ba tey benn yoon la nu mas a dal muy lan mu di faat xam ngeen saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay kiimtaani suñu borom lañ maanaam borom bi subhanahu wa taala dafa def képp kuy déglu dundu saxaaba yi rek ak koo mën a doon dina am koo xam ne daf lay marqué ci sa xol marqué goo xam ne wax dëgg yàlla wuute naag yeneen yi donte nag ñëpp a baax ñëpp a ragal yàlla ñëpp la suñu borom gërëm subhaanahu wa taala waaye am na ci ñoo xam ne mbokk yi te jàpp naa ni kenn ku ci nekk ak ka la gën a marqué ci saxaaba yi kenn ku ci nekk am nga ku lay marqué waaye boo seetloo lam daloon ci dundu Umar ibn al-Khattab defe naa boobaag léegi mi ngi bëgg a mat ñeenti at wala ñett bopp gën jaabari dama wax ne léeg-léeg dafa am ñoo xam ni boo amul sens booy déglu seen dund da nga far ba far gi ëpp te doo ko yëg li ko waral mooy borom bi dafa def kenn ku ci nekk ak xolam la koy yëngal ca dund saxaaba yi Xaalid ibn Walid mbokk yi man day wax dëgg yàlla amul benn bis bu ma mas a fàttali boo xam ni tiim naa ko dundam di ko jàng wala ma di ko jàngale wallahi ushidullah ci ni li may yëg yàlla rek moo ko xam maanaam dafa mel ni su ma tiimee dundu Xaalid di ko jàng wala ma di ko jàngale pour man li may yëg du ma ko yëg su ma tiimee dund ñeneen ci saxaaba yi te laa sakka ne xam ngeen ni loola dañ koo wax rek waaye bu ñu nee Xaalid te ñeneen saxaaba yaa tax ndax xam ngeen ni bu dee Abubakar ak Omar ak Osman ak Ali ñoom jaawatul xantara ñoom jéggi nañ point ba na ci gannaaw ñoom bu ñuy leen kenn du leen limaale waaye Xaalid mbokk yi ak dundam dafa kéemtaane kéemtaane koo xam ne jàpp naa ni bu mu àndee ak dundam ba nopp am naa yaakaar ci ne li ma dal dana dal jeex ñeen na ci ñun Xaalid ibn Walid mbokk yi kéemtaane suñu borom la Abu Bakr Siddiq danañ wax nii عجزت النساء أن يلدن مثل خالد أو مثل خالد jigéen ñi day tële nañoo jure ci doom ju mel ni Xaalid ibn Walid allahu akbar xam ngeen mbokk yi seede léeg-léeg ka muy jóge dana tax seede bi am valeur seede bu jógee ci ku gëm yàlla ku mën a doon day am valeur waaye jàpp naa ni seede bu jógee ci ku mel ni Abu Bakr Siddiq afdalul ummati ba'da nabiyiha sàllaaw da nga xam ni kon mbokk yi seede bi bu am valeur la Abubakar daa xool jigéen ñi ba mu yàgg xool Xaalid ba mu yàgg mu ni gëm naa ni jigéen ñi dootuñ mën a jur ci doom ju mel ni Xaalid ibn Walid doy na ci mbaa ak i garaat bi la tappal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni Xaalid de jaasi la ci yàlla bocc ci kaw yéefareeg naafiq yi loolu jaasi joo xam ne suñu borom moo ko bocc boppam ci kaw yéefareeg naafiq yi laa sakka ne jooju jaasi jaasi kéemaan lay doon mbokk yi Xaalid ibn Walid tey day maa ngi jàpp ni dundam bu ñu ko waxtaanee ba noppi dañuy yëgaat ni umma bi tey dañoo aajawaat jigéen ñi jural ñu ay doom yu mel ni Xaalid ndax lislaam kat jamono ba ngeen di gis Xaalid dañu woon song ca kaw ay rangooñam fer li ko waral mooy Xaalid kéemtaanu suñu borom la woon subhaanahu wa taala buntu boo dem nag da ngay fekk ku ca yàlla defal ay jagle boo dikkee ci dëgg gis ñoom Abu Dar ak ñoom Abu Darda boo dikkee ci mën a jaamu yàlla gis ngeen ni ñoom Asmaan ak abdullah ibn abbas ñoo mag ñi ca des bu di ci wàllu xam-xam gis ubay ibn kaab abdullah ibn abbas ali ibn abi talib zayd ibn xaaris nga lima lima lima lim waaye boo jógee ci njàmbaarte wallahi xaarit booy lee dundam da ngay dem ba mu yàgg yow ngay weddi sa bopp di wax est ce que lii may lii sax du ay du ay yéen ndax lii mën naa nekk ndax xeeti jëf def yoo xam ne doomu aadama ci jëmmi boppam dafa jàpp ni lii mënta nekk moo tax benn borom xam-xam bu mag day wax ni Xaalid ibnul Walid lii mu doon def de ku ko xool ba ci biir da ngay xam ne ndimbalum suñu borom moo ca wàcc rek waaye nekkul lu doomu aadama baaxoo di ko xam tey jii nag ndeysaan bi nga xamante ni jullit ñi ñàkk nañ ku mel ni Xaalid mboolem valeur yi nga xamante ni jullit ñi amoon nañ ko mbokk yi valeur yooyu ñu ngi koy commencé ñàkk xanaa loolu day méngoog la waykat bi wax daan inni tadakkartu wa dhikra mu'arriqatun majdan salidan bi aydina ataanaahu أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه كم طرفتنا يد كنا نطرفها وبات يملكنا شعب ملكناه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا خزاياه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا وانزل دمشقا وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه يا من يرى عمرا يكسو تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كترى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يسيدون لنا مجدا أضعناه الله أكبر برم خم خم بي مني مني من دماغي فاتلكو تفاتلكو لي جوخي تاريخ teraanga joo xam ni yàgg naa tege ci suñuy loxo te tey nee na nekk dañ koo ñàkk foo ma sa wëlbatiku ci réew sa jamono ci àddina bi da ngay fekk lislaam mu fay langaamu ca kaw mel ni picc muy naaw ñaata yoon tey ay loxo di ñu fa cex fa cexee yàpp ñu def ñu ay fupeen te boo jàngee taarix démb moo ñu doon fonkal suñuy tànk ndax ñoo ko moomoon ñun na dañoo ñàkk sens ndax occidentaux yi ñoom dañoo dellu ca seeni maam xool seen seen cosaan ak seen jaar-jaar mu gindi leen war leen fan mën a jaar fan war a jaar ñun nag dañoo am ay maam ak ay jaar-jaar yu baax yoo xam ni au lieu que ñu dellu seen jaar du koy fàtte mu ne laajal géej rom nga wala boog ñun ñu ngi daw ci ginnaaw yéefar yeeg occidentaux yi di jël ci ñoom bu ko defee moo tax torop tàngi gii ñu dal tey bi ñu dalee mooy biñ commencé roy ci ñu dul sunu sunuy nawle laajal géej ak rom ga ba ca gannaaw ga ar ay arab newoon nañ fa yoo xam ni kuñ mas a dajal ku ne nga daw ndax ñoo la man tey ñoom ñëpp tasaaroo nañ ñàkk nañ doole boo demee dimanche xeer ya fa nekk nga laaj leen dama ni xeer wu ca mënoon a wax tey dana jàkkaarloo yow wax la métit lu bu doon tàggee sax mu tàggee la ko li nga xamante ni mooy métit bu ñuy dund tey nee na yii yëpp ay mandarga la yoo xam benn bu ci nekk mi ngi muumali muut tey jii bu taxawal na def xutba ju mag wax la fan la lislaam tolol ak dooleem mu ne yàlla xam na ni daaw ma ubbi seen siira di ko jàng mukk lu dul rek faran doon doon baaxoo jaar rek mu yoonam faw mu jaar fa ndax xol bu naqari mu ni xoolal rek yow mi nga xam ne yaa ngi tiimu Omar muy Amar ibn al-Khattab taksoohu burdatuhu nee na amul benn yére bu dul benn mante bu xaw a yamamaay bu mu sol wa zaytu udmun lahu nee na diw diw diw ñor mbaa diw ci moom lay diwee mburóom wal kuuxu mawaahu néeg ba mu am daa gàtta gàtta gàtt comme dundul ginaar nga xam ne boo ko xoolee def xoolee da nga koy xeeb mu ne yahtazzu kisra ala kursiyihi faraqan kisra boo ko fekkee fa mu toog nee na boo nee Omar rek mu tiit ba tiit bi yëngatu nee na baatab Omar rek boo ko tuddee tiit ba tiit bi yëngatu mu ne min xaw fii ndax ragal ko mu ne wa muluuku ruumi taxshaahu ku mës a jiite loo borom boo nee Omar ibn al-Khattab rek xamal ni waxtaanam yàqu na mu ne yow yi suñu borom maa ngi lay ñaan nga delloo ci ñu teraanga joo xam ni ñàkkoon nañ ko bu yàgg wala nga delloo ci ñu ay nit yoo xam ni ñoo ñuy delloo ci teraanga bi yàgg dañ ñàkkoon amiin laa takk ni lii mbokk yi dëgg la boo xamante ni bu wér la amul benn sikk sàkk kon tey mbokk yi ñu ngi kenn ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam damay wax la imaamu zahabi waxoon rek innahu xaalid ibnu alwalid سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان القرشي المخزومي المكي وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ولا لك إمام الذهبي كثيرا بمثال جمال خالد لي لنتك وقت ذلك خالد ابن الوليد mooy jaasi suñu borom bi ñu bocc mooy ngawar ngawar mooy warkat xeexkat dëgg ci lislaam mooy jàmbaari xare gi imam ju mag ja njiit lu fës la mboolem ñi doon général yi guerre yi xaalid moo ca man mooy abu suleyman moo nekkoon dàkkar salam almaxzumi almakki ci waa makka la ibnu ukhti ummi almuminin umul muminin muy maymuna bint alxaaris moog yaayu xaalid ibn alwalid ñoo bokk ndey ak baay wala boog ñoo bokk baay moo tax maymuna soxna yonent bi tànt la woon ci xaalid kon yaayu xaalid ak maymuna soxna yonent bi ak umul fadl umul fadl moom moog umul fadl yaayu ibn abbas umul fadl yaayu ibn abbas maymuna soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yaayu Xaalid ibn al-Walid ñoom ñëpp bu ñu bokkul ndey ak baay ñoo bokk benn baay moom kon Xaalid Maymuna bàjjan la woon ci moom Xaalid nag mbokk yi ku yéex a tuub la ndax mi ngi tuuboon ci weeru safar muharram moo njëkk ci at nit la atu atu atum jullit ñi muharram safara ca topp kon ñaareelu weer ci at mooma ci atum juróom-ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la xaalis tuub waaye man li ma yéem ci tuubu xaalis mbokk yi mooy xaalis dafa mel ni da doon tuub pour xeex yi di ko xaar maanaam moom dafa tuub rek soog ko aw yoonu xare mu amul sax toog fii naan day def nangam moo tax loolu laa wax mbokk yi may léeg-léeg nga dégg ku ni an xaalis ak ak jaxe nga dégg ko def naa loolu mu yàgg naa ñuy jàng xaalis xam nañu xaalis bu xaalis ibnul walid solo ak ak jaxe nga def ko jafe na trop xanaa nga dem jamasaani bi musnad ya wala musannafaat ya waaye téere yi nga xam ni yu gàtt gàtt yi ay riyaadu saalih arbaay nawawi téere ndaw daal yi pour ngi ci bu xaalis solo ak a jafe am na de waaye lu ñeew la li ko waral mooy moom dafa tuub rek tombeeg benn xare bu metti bu taxaw mu mel ni moom xare bi moom la doon xaar moom Xaalid ibn al-Walid muy xeexu Mu'ta allahu akbar mbokk yi Mu'ta xeex bu daw yaram la boo xam ku gëm yàlla ku ko dégg bu xolam oyofee lu mu néew néew néew dootoo mën a téye ci sa bopp xeex la boo xam ni méttiwaay ga foo ko takk foo xalaat rox moo tax lii dinaa koy wax sama bopp di ko wax mbokk yi mbokk yi wallahi war nañoo góorgóorluwaat suñuy jaamu yàlla yi mbokk yi ñun métti métti yàlla saxaaba ya fekkee woon ñun neex neex yi lañ fekkee ndax maa ngi jàpp ni yow miy jàng ci salaf am na yooyu buñ la koy nettali laaj bi ngay jëkk laaj sa bopp mooy man bu ma ko fekkee woon fu ma jëm ah man de xaw ma yéen waaye man wax dëgg yàlla loolu laa laaj sama bopp yàlla xam na am na yooyu dama koy wér ba mu yàgg man damay tuumaal sama bopp ak naa fekk ndax laaj bi may laaj sama bopp man du ma am tontom dëgg neex yàlla rek waaye man du ma am tontom lii su ma ko fekkee woon fu ma jëm man du ma am tontom dëgg dëgg neex yàlla lu tax du ma am tontom mooy doo xam yow ndax boo ko fekkee woon yàlla boo xal ku bokk te ñu xal ku ña wala iyaadu billah ndax xeeti métti ya xoolal mukta mbokk yi ñetti généralu guerre yoo xam ni kenn ku ci nekk njàmbaar teen dafa siiwoon ba ñëpp xam ko ñoom ñetti ñëpp ci xare boobu la ñu daanu yonent bi ba mu organisé xeex ba ca la saxaaba yoo xam ne yaa quelque chose am na lu xew ndax daawul defee nii xam ngeen ni kilifa am na xeeti ndef-ndef yoo xam ne bu ko xasee def rek ku muus di nga xam ne am na lu xew parce que ku ko xam yàgg ak moom da nga xam ne jiw daawul defee nii yonent bi daan daan jël benn général jiidal ko ñu dem ñu guerre mu jeex amma bii nag yonent bi dani jiital naa zaydun bu faatoo na ca jaafar topp bu faatoo na ca abdullah ibn rawaha topp am na saxaaba yoo xam ne nee nañ balaa gee gaayee départ xam nañ ni ñii dañuy faat lu tax ñu xam ko mooy yonent bi daawul defee nii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bi loolu amee ndeysaan ñu dem ci xare ba comme ni ma ko naree faram fàccee léegi zaydu daanu ah jaafar daanu allahu akbar ah abdullah ibn rawaha daanu noonu bi mu àggee rek ndeysaan jullit ñi jaaxle yéefar yi jàpp jullit ñi def leen loo xam ni kenn musu ko dégg ndax affaire bi dafa commencé tasaaroo léegi amul njiit fekk Xaalid mi ngi doog a tuub moo tax ma ne la moom dafa mel ni xare yi dafa doon xaar waaye mu am fulla ju doy ni faral boppam général te kenn falu ko ko yonente bi saxal ko te sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar keroog la ko yonente bi tuddee sayfullah ndax bi Xaalid gisee ni ñuy def jullit ñi xol bi jóg ndax mi ngi doog a tuub mu gis ni amuñ amir mu daw këpp drapeau bi fal boppam boobu nag lu mën a nekk la waaye nag ci am na ay surut ak dawaabit ñu ngi mel ni laaj njiit sa fa muy mënee nekk nit ci def ko Xaalid ibn al-Walid sa la yonente bi saa sallam daal ni inna xaalidan sayfun sallahu llahu ala al-musrikin Xaalid day jaatale ji suñu borom bocci ngàllu ko ci loosu ñi nga xamante ni ñoom ñooy saay-saay seen yéefar yi bañ na ko ba allahu akbar mbokk yi ñun kenn ku ci nekk da nga naan jël naa sama lii def ko wax jël naa samay xaalis moom fas li mu doon war ak mbubb kon li mu doon yore ak jaas ji mu doon yore nee na moom laa def wax fi sabilillah ngir wàññi ne lii kat bu ma faatoo sax kenn du ko doon ndax dama ciy liggéeyal yàlla ak yonenteem te te muqta sa xunayn sa xurub ridda xeex sa ko tey ay wax ak ay ubbee yu bare bare yoo xam ni jàpp na ni bind yii di ñëw yépp muy ñaari bind ca kanam sax ñu ngi koy def ci dundu xaalis insha allah kon borom xam-xam dañuy wax ni diggante ay ra ak saab ni mu soree soriyaay boo xam ne daanaka ay dox yu weer wala yu ko toll nit da koy dox xaalis ànd naag soldaar ci ndox loolu lañ ko far force ci cinq jours ndax rek xare bu tarte metti te li ñuy liggéey dañ ko yàkkam ci moo tax keroog bi muy faatu am na lu ko métti lool bokk na ca lam doon wax mu ni ba ci sama yaram wi ci kaw ba ci suuf amul koy xool lu dul taw tawi jaasi ma nga ko wala jam-jamab xeej ma nga ko man xaalis kilifa gu doy ni man bëgg xare lool may dee nii ci kaw lal dal di jooy ñu laa daamal aanumal aayumal jubanaa képp ku tàppet boo tëddee yal na yàlla yóbbu say nelaw bul mën a nelaw ndax man xaalis bëgguma war a deeyee nii mu ne maa ngi dee sama kawlal mel ni mbaam allahu akbar mu ne amuutu lyawma ala firashi kama yamuutu lximaar maa ngi nii di faatu sama lal comme ni mbaam di faatoo ndax man xaalis mu giñ mu giñ ci yàlla ni guddi giñ ko may seet ak guddi giñ ñi ko sa soxna am na doom mu ni yëgul différence am ak guddi giñ fanaanee taw bu fanaanee xare allahu akbar guddi giñ ko wax sa soxna am na doom moo guddi giñ ko may seet moo guddi giñ fanaanee taw mu fanaanee xare nee na gisul différence ci ñetti guddi yi loolu nag jàpp na nag tolluwaay la loolu moom bu ko kenn di wax sax moom nañ ko bàyyi moom kese mu wax ko loolu moom tolluwaay bu kawe la Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kañ la tuub dugg ci lislaam fii nag borom ci kër gi Mahmoud al Masri dafa def liggéey boo xam ne liggéey bu ma neex la jazaahu llahu xayran jazaahu llahu xayran dafa wax wax joo xam ne jàpp naa ni jii wax moom fii waxu fi lu gën a rafet loolu dani ana laa astatiu an aktuba kalimatan waxidatan an maadihi qabla an yuslim fal islaamu yajubu maa qabla wa yakfiihi sharafan wallahi an yaqdama til yuqaddima tilka tadaxiyaati walbutulaati lil islam allahu akbar mbokk yi xam ngeen ni dana nekk jàmbaar lool waaye saa boo tuddee démb bi rek lu ñaaw nit dana nekk jàmbaar lool ci lislaam waaye boo tuddee démb bi rek mu xaw a xajamal fi mu toll moo tax ma ne la borom téere bi fii def na fi lu rafet loo xam ni liir naa ñi bind ci dundu Xaalid ñëpp daanaka liggéey bu rafetee nii moom ci buntu bii moom gisaguma ko fa def moo tax jazaahullahu xayran wa xafidahu wa raa mu ni man day mënumaa bind benn araf ci kan mooy Xaalid avant muy tuub mu ne benn araf mënuma koo bind ñu expliqué kan mooy Xaalid avant muy tuub mu ne lu tax ndax mbir yi ay xajam-xajam ma nga fa ndax xam ngeen ni yooyu amaana dana ko nettali ci yeneen dar su waaye tey moom bëgguñu koo nettali moom dañuy def ni borom téere bi def ndax am na fu jullit ñi jaar foo xam ne bu dul woon ak Xaalid du mettee noonu te ñoom mayam foofu yooya la borom téere bi di xasab mu ne mënuma caa tudd benn arab la ko waral mooy ndax l'islam ya jubbu ma qabla wa tawbatu ta jubbu ma qablaha yéen tamit l'islam day bombardé lu mu fekkoon ci ay ñaaw ñaaw tuub day bombardé lu mu fekkoon ci ay bàkkaar nin doy na rek xaalis ak teraanga nga xam ni sacrifice yi mu defal l'islam gis nga diggante dundu yonent bi ak Abubakar ak Omar ndax xam ni ci dundu Omar ci la Abubakar ci la xaalis paas diggante dundu yonent bi ak dundu Abubakar ak dundu Omar diggante bu gàtt boobu ndax xam ngeen ni quatre ans rek la xaalis amal yonent bi saa salaam comme Abu Hurayra waaye nit digal soosu liggéey la ci loo xam ne mën koo liggéey ci soixante ans wala cent ans moo tax nee na fa ana aatabiru milaadahu mundu tilka lahza moom borom téere bi akaam kull la mu ne man kon buñ ma laajee kañ la xaalis judd mun dama naan keroog bi xaalis tuubee la judd allahu akbar fii moom fii moom nee naa bii moom da koo rëcc liggéey bu rafetee nii moom da koo rëcc kañ la xaalis judd mu ne kon maa ngi jàpp ni kon keroog ba mu tuubee ci la judd lu tax ndax xam ngeen ni ku tuub doo andaale benn bàkkaar comme ku judd doo andaale benn bàkkaar comme ku tuub tamit kadalik nee nag gis li nga xamante ni ab xolam fudd na mu jëm ci yàlla mu ne man bu ñëwee ma kañ la xaalis judd dama naan tëla judd bu ko defee la ca gannaaw ñu fàtte ko am naa nan la def ba tuub nag dugg ci lislaam suñu waram xam ngeen ni mbokk yi mooy gindi ko ko soob moo tax gis nga nit bu mu saay saay mukk ba nga koy móolu di wax doo defal ndànk rek nit nit móolu nga ko yit di ko wax kon sabaan boo ci ëppale rek bu tuubee rek mbaa mu deltu gannaaw nga réccu mi ngi mel ni ab musicien soo jëlee Sénégal ci misaal ci misaal musicien bi fi gën a mag xaw ma ku ngeen wax kat la waaye bu dem sànni ngeen ko gën a mag moo xam góor la moo xam jigéen la amoon na sama classe bi fi mu nekk nii bokk ni sopp sa juróom ci seen pexe waaw dëgg la loolu lépp ci bañ ban la waa kooku bu xëyoon suuf foofu lépp bu xëyoon suuf tuub du am l'islam rek nga xam ne dama ni maa ngi dem kooku jaamay jàng di nga rus de wallaay di nga rus jàpp naa ne musicien bi gën a mag tey bu tuuboon rek ngab ay dëbësam jaay lim am lépp jëm kokkee day jàngi alquran jàpp naa ne dina bari si ñun ñu rus de ndax am na ñoo xam ne li ñuy wax waruñu koo wax ñaanal ko yàlla rek nga bàyyi ko dëgg la na la metti waaye nag metti du tekkiwul ni faw nga di ko waxal lu bon Amr ibn al-As yaakaar naa xam ngeen ko waa ji def def toppi woon julli ñi bañ demee Éthiopie moo doon wax tey dinaa fen fen woo xam ne kenn musu koo fen ba àddina su soo ba tey mooy xam demee di jaxase na jaasee gaa yi mu ni baal ba suba duñ jeexi bu subaa dinaa fen fen woo xam ne benn arab mës sa fen fen wu nga ne loolu lu mu jublu woon ci loolu mooy créé benn affaire bu mu jaxase diggante jaafar ñoom ak najaasi par fen wa fen na ko waaye fen wa sottiwul Amr ibn al-As nee na damaa toog ba mu yàgg sama xol bi fudd ma rus gis nga gis nga gis nga taay taay day toll yàgg day rus nag gis nga léeg-léeg da ngay toll foo xam da ngay rus da ngay xam ni lii nga nekkee jaaduwul yaa yedd sa bopp nee na ma rus xam ni fi mu nekk nii di dëgg dëgg tuub jot na ndax xool naa xool xam na ni ci ay caaxaan lañ nekk nee na ma ngab ma war sama fas génn màkka damay damay def seen fasan tuubi nee na ma génn rek falal yàlla ni muy mën ni ma defee programme bi rek mu dajee Xaalid ibn al Walid bi mu dajee Xaalid ni ko ayna anta ya aba salman ha ayna ya aba salman yow du papay salman foo jëm Souleymane aba Souleymane mu ne ko wallahi laqad istaqaama al mantin mu ne giñ naa ci yàlla fi ne mbir yi leer na nag buñ ko topp ci dañoo def la ñu neex rek wa inna rajula la nabi man de gëm naa ni waa ji ab yonent la muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ dem ñu tuub mu ne ko adhabu wallahi fa aslam man damay dem pour tuubi de ah fa hatta mata ñun suñu mënte gi xanaa duñu waar suñu bopp ba kay nii ni ñu nekk di saay saay ba xëy dee mu ne ko wallahi ma jitu illa li uslim man mii tax day li may génn sama kër décision bi la génne moo ma génne nee na fa qadimna al madina ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu daal di ñëw ba yegg si madina ndeysaan xam naa ne bu amar daje woon ñoom ci ñu ne balaa ñu yegg si ndax ni mu leen eenee woon ak ni mu leen bañee woon damay tiit bu dañoo woon ak ñoom mu rey leen balaa ñu yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam d'accord Xaalid jàmbaar la nag waaye nag bu fàttali ñoom ñëpp dañoo ragaloon Omar rek moom gis nga diggante Xaalid ak Omar sax ay jiixi jaaxaati ñag gi ñag gi am na fa yoo xam ni yooyu yëpp daanaka daal kenn mënu koo lim Xaalid ibn Walid moo njëkk a yegg ci ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di li mu njëkk a wax mooy yonent bi leen rek laa soxla ñaanal ma yàlla mu jéggal ma samay bàkkaar loolu rek laa soxla yëg naa ne def naa ci ay musiba loo xam ne moom jërul sax di commenté di ko tudd ñaanal ma yàlla mu jéggal ma samay bàkkaar ndeysaan bi loolu accès am te ak accès Amr ibn al-As mi yegg ni ko yonent bi ñaanal ma yàlla mu jéggal ma samay bàkkaar li wees mi ngi ñëw bu sax man amul problème waaye li wees moom na ma ko jéggal rek xam ngeen ni kookan ki ki kii sàkk ñu jéggal ko li wees te moo ni ngi ñëw bu ñëpp a ko soxla kooku kon li wees yitteel na ko lool yonent yàlla bi booy leen kàddu gi ni Amr tuubal te nga dugg ci lislaam te nga xam ne lislaam day faxas mboolem la ko jiitu woon ci ak caay caay tuubis day faxas la ko jiitu woon ci ay bàkkaar nee na mu daal di jaayanteeg Xaalid jaayanteeg Amr ibn al-As bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog la wax wax ju am solo mu ne alqat ilaykum makkatu aflaada akbaabiha tey nag màkk dagg na as lépp ci xolam jox leen Xaalid yéeféri dañ ko fonkoon lool comme ni ko ni ko jullit ñi fonkee bi mu tuubee xam nga lu ko waral mooy li wolof yi tuddee sànni tàkk maanaam da ngay gis yéeféri buñ musaani ñëw ci xare bi seen xaalis xam nga loolu day faral di am loolu sax ci foyee groupe yeeg da ngay groupe boo xam ne buñ àndee fekk am na ku ci nekk da ngay kuy dëgër dëgër lu fit nga defee aw fitama dëgër fekk dee daal sukkandiku ci waaji rek kese xaalis bu musaani ñëw ci xare bu ko yéeféri gisee rek seen xel dal waaye jullit ñi ci boppam dañoo demoon ba fas ñi sax bu xaalis teewee ñoo war a gagné est-ce que xam nga ni Amar boobu loolu moo taxoon mu folle xaalis maanaam eenu ko woon de comme nit ñi nit ñi foog da koo een da koo nangam ak jëf yi nga xam dinaa ko tudd ak yi ma jotoon a tudd déedéet Amar biñ ko laajee lu tax nga def ko dani la Aboubacar waxoon laay wax jigéen dootul jure si doom ju mel ni xaalis muy te giñ naa ci yàlla ni xaalis dara doxul sama digganteeg moom jullit ñee dem ba commencé naagu ci ndimbalum yàlla ni du ñëw fii xaalis teewul ma xolli ko ngir wan leen ni xaalis joxewul ndimbal yàllaa koy joxe moom nag xam nga moom dafa tàngoor yu daa ëppoon ba daanaka yu bari duñ ci di ci nekk xam ci masalaan bi xaalis yonent yàlla bi ne allahuma agfir li xaalid ibn alwalid kullama awdaa fiihi min saddin an sabili yow suñu borom fépp xaalis mas a jaar sakk fa yoonu yàlla baal ko ko bis ni ki tey allahu akbar xaalis kontaan lool radiallahu anhu mu ni keroog la ma yonent bi wóolu ci ay mbiram rawatina ci mbiri xare xaalis ibn walid mbokk yi xeex bi mu njëkk a fekkee te mooy xeex bu métt mooy gazwatu mu'ta ak dundam yépp nag xare la dundam yépp xare la te it nag dafa yeggoon ci ñemeñ ak jàmbaar ci foo xam ni jàpp naa yi di ko teel a bind nii sax jëru ko ndax ci biir bind bi rek dana feeñ nga xam ne kii moom kéemtaanu suñu borom la woon xeex xeexu Mu'ta ndeysaan yonent bi dafa organisé général yi mu ne aleykum aleykum Zayd ibn Haarisa jël leen Zayd ibn Haaris fa in usiba Zaydun fa Jaafar bu Zayd faatoo na Jaafar ñëw fa in usiba Jaafar fa Abdullah ibn Rawaha al Ansaari fa wataba Jaafar Jaafar daal di tëb mu ne yonent bi lan moo tax ngay jiital Seydou ci man pourquoi jiitu ma ko moom dafa maa gën wala lan yonent bi ne ko demal noonu ma ko defee rek noonu la baaxee amaana yàlla def leneen loo xamut lu mu doon ndekk ñun ñëpp dañoo war a faatu noonu lay daan julli ñi dem te mu utat mu nekk xeex boo xam ne comme ni ma la ko junjee sànq jàpp naa ne dees koy mboros yàlla ndax xeex la boo xam ne ni mu mettee yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala ndeysaan xeex bi metti lool egg ci ay julit la ca dee bul xam nu mu toll ndeysaan Zayd daal daanu faat ñu topp ci Jaafar daanu ñu topp ci Abdullah ibn Rawaha daanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jékki-jékki ba mu yàgg mu ni waaw yéen seen général yi ngeen yabal ca guerre ba xanaa du ngeen ma laaj lu xew te mi ngi toog Madina diggante Rome ak Madina tey rek tey rek neel rom ni Madina rek xoolal ni mu soree téléphone amul satellite amul dara amul luy joxe xabaar yonent bi yéeg ci kaw minbar nee na gaa yi jàmmarloo nañ ci xeex bu méttee méttee méttee méttee métt kilifa gu mag jaaxaan na muy Zeydu Fatima bi mu koy nekk li ndeysaan rango yaa ngi tuuru sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waay bu ñuy wax Jaafar ibn Abi Talib keroog la faatu woon keroog la ko suñu borom defalee ah jaafar lu ko suñu borom defaloon ñaari laaf muy naaw di ànd ak malaaka yi loolu la ko suñu borom defaloon keroog la ko suñu borom defal jaafar ibn abi talib jël alliwaa ak ni mu jàmbaaree woon te xam ngeen ni maanaam waa kër abu talib ak waa kër abdul muttalib ci boppam ay jàmm gis nga jaafar ibn abi talib ali ibn abi talib muslim aqil gis ngeen ñi ay xeeti jàmbaar lañ woon yoo xam ne gis ngeen muslim ibn aqil ca ca ban xare karbala gis ngeen ko de moom kenn sutayl yabal subhaana rabbina al aala balaa ñu ko rey dafa mel ni maanaam mbooloo mu tiim téeméeri nit su fekk benn nit la woon maanaam waa kër abu abu talib ci boppam ali yi mu bokkal ci boppam ñoo di ay kéemtaan defe naa dund ali gisoon ngeen ali ca xaybar ah loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaafar daal di daanu gis nga ci jaafar daanu mu nekk abdullah ibn rawaha allahu akbar gis nga léeg-léeg nit dana toll foo xam ne bu la suñu borom di defalul ni ba rek nga daanu abdullah ibn rawaha daal di seen drapeau bi wat te moo ci war a topp de muy hésité naa ko jël duma ko jël ba ko seytaane koy jax jaxal naa ko ah kii dee na kii dee na kon de yaa ciy topp rek ndax yéen itam danañ bu kii dee bu kii dee kon après yaay topp muy hésité day ba ko jël yàgg mu hésité foofu nag suñu borom defal ko ndimbal muy giñ ci mu giñ muy way mu ni giñ ñaa ci yàlla di nga ko jël de ayow looy daw dee kenn la bi boo deewul fii da nga dee feneen rek daal di këpp drapeau bi jubat moom départ moom Abdullah ibn Rawaha ndeysaan xam ngeen ku mënoon a way la Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha Kaab ibn Malik Hasan ibn Thabit ñooñu ay gaay lañ yoo xam ne suñu borom daf leen defaloon kéemtaan ci mën a wax ak leeram noonu Abdullah ibn Rawaha daal di dem tuuti ndeysaan moom it faatu gaa yi commencé jànnaxeeg jaaxle Xaalid daal di sëcc ci sëccëg li nga xamante ni moom mooy drapeau bi daal di koy téye ca la ko yonent bi tuddee sayfullah yent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal ne am na genn góor ci góor yàlla yi ku jël drapeau bi koo xam ni jaasira bi suñu borom bocc ci kaw yéefar yi kooku mooy Xaalid ibn Walid Anas ibn Malik nee na yonent bi dafa tàgge Zayd ak Jaafar ak Abdullah ibn Rawaha te booba xabaar bi yegseegul Madina kon moo lay won ni wax yu la nee na boobu mi ngi taxaw ci kaw minbar bi rango ñaa ngi tuuru sallallahu alayhi wa sallam waaye ci xare boobu mbokk yi xare la boo xam ne Xaalid def na fa ay kéemtaan yoo xam ne moom la ko julli ñu njëkk a gisal te fekk moom mi ngi nekk wàcc bees te jàpp naa ne wàcc bees moom waree su ko war a jox drapeau waaye nag am na lu suñu borom def ci moom. Abu Amir nee na gis boobu ma gis ni drapeau baa ngi seen deefalu ma téye ko nee na bi ma ko téye rek ma seen Xaalid ni ko xudil li waa ya Aba Souleymane jël drapeau bi fa anta adra bil qitaali minni téye drapeau bi ndam la succès la. waaye nag maanute mooy gëm naa ni yaa ma gën a jekku xare jël ko ah mu ni fa wallahi ma axadtu illa lak bi may for drapeau bi for ma ko woon pour bëgg koo téye waaye dama koo for pour jox si la ko Xaalid daal di koy téye mbokk yi keroog xare boobu ci juróom benni fan jullit ñi di ko xare xam ngeen yéefar yi ñaata lañ woon yéefar yi ñi ngi nekk kon ñett téeméeri junni yi ñett téeméeri junni yi deux cent mille defe naa noonu deux cent mille personnes moom la jot ñu yéebay nekkoon xam nga jullit ñi ñaata lañ woon ah ñetti junni ñetti junni ñetti junni yi nit nan lañ mën a dikkoo ñett téeméeri junni yi ça veut dire que loolu mooy lan loolu mooy daanaka rek téeméeri nit yu nekk dañuy ñëw pour war a song ci benn jullit xam tuuti kon nga ne mooy téeméer li ñu war a ñëw song ci benn jullit waaye nag kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idnillah maanaam mbir mi du bil kasra ay daje yu bari yoo xam ne insha allah dina ñëw ci dundu saxaaba yi yoo xam ne jullit ñi yéefar yi ëppee nañ leen ab lim waaye keroog lañ gën a am courage ndax aaya jooju suñu borom di leen dëfal di leen wax ne mbir mi du ci bil kasra waaye bil imaani ah wal ixlaas wal yaqin ñett téeméeri junni nit wala jàkkaarloog ñetti junni nit ñu rey ci ay julit loo xam ne ni mu toll yàlla rek moo ko xam waaye mbokk yi xoolal bi xaalis yeeg see allahu akbar moo tax gis nga li arab bala wax naan aatil xawsa baariha boo bëggee fett ci buñ ko sànnee mu dal da nga koy jox ko ka yoyow gis nga mbokk yi ñun bokk na ci xam naa sax ku bëgg a wax échec yi ñu am ci échec gu daawa daf bari na moom da ngay wax ba sonn waaye comme bii la ñu toll bari na échec yu ñu am xam nga lu koy waral mooy mbir mu ne dañ ko dul jox ko moom dafa mbir yoo xam ni léeg-léeg dañ ciy dawal ay sentiment ak li wa bi gën a yàgg ak li wa bi gën a mag ak li wa bi gën a nangam ak li wa bi li wa jàngiwoon bi ci réew ak li wa li wa li wa moom nangam li wa moo fi am xaalis ak li déedéet yooyu amul ci lislaam xam nga lu am mooy mbir mi ku ko gën a mën ñu jox ko ko ñetti junni nit war a dékku ñett téeméeri junni nit déglu stratégie bi xaalis def bañ jumalee ndaw ñi ci rey nañ Zayd rey nañ Jaafar rey nañ Abdullah ibn Rawaha Xaalid jël drapeau bi ci loxol Abu Amir daal di woo gars yi ñëw taxaw ci kanamam mu waar leen fàttali leen delloo si leen ci yàlla pare pour joxe ba kanam léegi mu ni xam ngeen gis nga gars yi ni ñuy organiser seen caaxaan yi seen foy nu ko gën a organiser noonu la julli ñu doon organiser bu ñuy xare daañu ñu nekk côté gauche am ñu nekk côté droite am ñu nekk kanam am ñu nekk ginnaaw am ñoo xam ne dañuy dañuy nekk ay remplaçant la ñuy doon di xaar façon boo yaakaaree dañ ko doon organiser xaalis mu ne yéen mbooloo mi féete woon day joor ñëw leen côté sàmmoñ mu ne yéen mbooloo mi nekkoon sàmmoñ dem leen côté lay joor yéen ñi newoon ci kanam arrière yéen yéen ñi newoon ci arrière dem leen ci kanam yéen ñi nekkoon ci digg bi génn leen dama leen di remplacer maanaam xeex bi ni mu demee woon ba yéefar yi miin ko fekk loolu la ñuy tuddee alxarbu xudaa maanaam xare naxante la ba jàll loolu la loolu lépp noonu alxarbu xudaa xeex nax la rek naxante la technique ba nax nax sa morom nga dem bi loolu amee xaalis bu ñu leen léegi su ngeen noppee dama leen di sàkku bu jël leen ay ay kii nu mu tuddati ay jóolóor yi ngeen takkal ko seen fas yi xam loolu amul woon nga xam ne mbooloo mi day may coow kalam lam lam lam ci mel ni bu ko xamul jël benn waay jox ko ndënd di ko tëggal bu nit ñi ki yeen sëggal ba mu foor ca kaw pour leen ba nit ñi dégg ñëpp jàpp ni xam xam lu mu jubloo ci loolu maanaam façon bi ñu xeexee juróom benni fan bu ñu xëyee ci juróom ñaareelu fan ba gis beneen façon bu bees ñoom dañuy jàpp ne kon julli ñi dañoo am ndimbal rapport loolu la ci jublu woon te effectivement loolu mooy li am ñi nekkoon day joor dem càmmoñ ñi nekkoon càmmoñ dem day joor ñi ne ci kanam ñëw ci ginnaaw ñi ne ci ginnaaw dem ci kanam mu am benn way buy tëgg ci ndëndënd fas yi di kursi kursi di fajantu gars yi di rëppatal seen fas yi mu ne na ngeen fexe ba fu ngeen nekk poussière bi na jub ba kenn du leen seen gars yi di fajante xool xam nga lii ban heure la ko def guddi lëndëm tu nga xam ne amul courant amul lampe ci guddi gi la ko organisé noonu bi ñu ko organisé noonu ñu xëy ci bitib juróom-ñaareel ba yéefar yi daal di jàkkaarloo jullit ñi bi ñu jàkkaarloo seen généralu guerre bi daal di xool mu ni nañ soppi doxalin ñii ma seen tey du ñu ñëwoon démb te mooy ñoom la de benn renfort ñu wut ñetti junni nit yi la waaye comme ñetti junni nit ñi bu ñu dankanikoo mu tasaare leen gaa yi ñi nga xamee woon ni démb ñoo féetewoon côté ndey joor mi ngi mel ni bu doon ci misaal seen caaxaan bi naa démb kat diw moo ñu sonal ci ci nangam bi kon na ngeen ko na ngeen ko bàyyi xel ñi nga xamoon ndey joor ñëpp gisuñu leen fa tey ñi nga xamoon càmmoñ gisuñu leen fa tey ñu xam ni kon ñu ne kon yeneen soldat yu bees dana ñëw fekk mbir mi demeewut noonu gars yi commencé arrière Xaalid ni leen léegi ni ñuy def mooy gis nga bés bu ñu jàpp jàkkaarloog ñoom ñoom danañ yaakaar ne ñun dañoo am ay renfort te fekk amuñu renfort mu ni ñoom bu ñuy sikk sàkk di jël préparation rek songu leen leen bi loolu amee tey songu leen leen tekkiwul mooy day toog fay naan songu leen leen de moom mooy jiitu ndax drapeau bi ku ko yore yaa jiitu mu jiitoon drapeau bi song subhanallah keroog bisu juróom-ñaareel bi jullit ñi rey nañ ci ay yéefar loo xam ne yéefar yi dañ ñu wëqit daw ñoom ñaar téeméeri junni nit ci ñetti junni nit dañ ñee wëqit daw xaalis nee na keroog ci bis boobu bisu juróom-ñaar bi muy damaa mel ni damaa xabtal woon jël naa jaas di xare ba mu damm ma jëlaat di xare ba mu damm ba mu mat juróom-ñeenti jaas jël naa ba amatuma jaas ji ma yore kub kub laa yore kub kub xam nga kub kub xam ngeen kub kub wax dëgg yàlla du jaas xare subhaana rabbina al aala juróom-ñeenti jaar mais tisaatu asyaafin in daqat bi yadi juróom-ñeenti jaar yoo xam ne benn bu ca nekk téye naa ko ci xare ba mu ni këllit dam xam ngeen ni seen jaar yooyu caaxaan dam ko mbokk yi ndax néew na looy dégg xarekat bu ne damaa xare ba sama jaar dam xanaa okaasa ma nga déggoon muy xare ba jaateen dam yonent bi jox ko yat muy li lu may nelaw yat mu ne ko demal nee na ma gisam rek mu nekku jaar ma départ moom xanaa loolu waaye sama jaasi dam la néew loo koy dégg waaw fa kay fa ki nga xamante ni ak njàmbaarteem yegg na ci ba mu damm juróom-ñeenti jaasi mais dem naa ba amatuma jaasi dana ci biir xare bi maa ngi yore kuk kuk di dama ko kooku moom fett yaa ngi ñëw waaw xam nga comme yàlla da ko bindee woon noo xam ne moom daanaka dafa mel ni li ko dombat ak li ko dóori jaasi mooy ci ko doon sang bi mu faatoo nee na foo wëlbatiku ci yaram bi rek bu taw taw jaasi nekkul jam-jamu xëy na ndax bu wér rek mu faj beneen ñëwaat ba nim faatoo radiyallahu anhu wa arda waaye foofu mbokk yi Xaalid def la technique ba gañe tey gisub juróom-ñaareel bi léegi luy xew yéefar yi daw nañ waaye comme diggante Rome ak Madina dafa soree kon yéefar yi gën a jege seen place kon ñoom dañuy dem pour préparer waat pour suba xaalis defaat beneen technique bu garaaw mooy woo soldat si ñu leen yàlla defal nañu ndimbal tey ñoo gañe waaye nag lañu rocceeku ndànk ñibbi ndax ñii di ëpp ndax bis bu ñu jëlaatee élan ñoom bu ñu ñëwee def def comme ñun tey suñu xol gerte na ñun nañ ñibbi wala xol bu sedd bàyyi leen loolu nag day nuru daw moo tax gis nga jigéen ñi jigéen ñi daal dëgg dëgg kenn xamut lu leen di def rek mu ne su leen a génn kër yi tey bis bu nekk musiba rek la ñuy wax xaalis yëg ci ba ci biir madina jigéen ñi di leen sëllëx suuf naan leen alfaraaruun tapkat yi ngeen doon tawkat yi ngeen doon xoolal xoolal ma lii rek ba yonent bi ci mujj jàpp nit ñi doog a bàyyi xoolal xoolal coono ba ñu daj mu sa ak jëf yi ñeñ fa rey jàmbaar yëpp tëdd amul leen jigéen ñi fayee lu dul di leen sëllax suuf naa leen koo tax gis nga am na yoo xam boo fa nekkee di ko tontu sax li nga liggéey fi sabi la day koy yàqu bàyyi leen rek ñu wax seen wax rek bu ñu waree wax bàyyi leen ñu wax te moo ne gis nga foofu ji nga ci jàngee gis nga léeg-léeg jigéen ñi jërul permettre jigéen ñi bàyyi leen ñu wax rek léegi da ngay gis góor goo xam ne daanaka moom du bëgg kenn wax mun daal noppi maay wax bien gis nga jigéen bàyyi ko mu wax rek na tarara léeg-léeg amal jotam léeg-léeg sax tarara waaye léeg amal jotam bàyyi ko mu wax ba xolam seen ndax wax rek la bàyyi ko mu wax rek gis nga yonent bi dikkul naa leen noppi leen de bu leen waxatu déedéet danaa leen ee waaye yéen ñi ngeen di wax alfarraarun duñu ay farraaroo de humul karraarun danoo wuti doole te maay doole moo tax ñu ñëw bàyyi leen ñuy waay kon gis nga même jëf ji sax wax ji yonent bi meru ci waaye orienté na leen ba jigéen ñi bàyyi seen sëllëx suuf gaaj seen saboote gam ay moo bi kon mbokk yi Xaalid ibn Walid noonu la mujj def borom bi subhanahu wa taala dogal mu war aw fasam fi mu demoon ci wetu ndeyjoor geeg wetu càmmoñ geeg kanam geeg gannaaw gi kenn ku ci nekk mu seet général ba ko jiite ndax mbooloo mu ci nekk day am ku leen jiite Xaalid mooy général bu mag bi te loolu noonu la xarit doon demee moo tax benn tubaab bu mag boo xam ne bind na ay livre yu bari bi mu tuubee dugg ci lislaam moom nee na bokk na ci li ko jaaxal ci lislaam mooy xamuñ ci àddina général buy organiser guerre boo xam ne ña muy jiite amuñ ay tenue te niñ leen di organiser amul benn général bu mën a organiser noonu ay soldaaram xam ngeen julli ñi duñu am ay tenue comme soldaar yi ni ñuy def tey te loolu bokk na ci li ko yéem Xaalid ibnul Walid daal di wax gars yi bu ngeen bàyyee ba xaaji guddi rocceeku leen ndànk mu ànd ak organisé wu te bañ a am folklore ngeen rocceeku ndànk ñu dem Madina ñu ji li ko waral mooy ñii duma nañ leen tey duma ko métti waaye duma gi kat yëgal ni li muy metti metti bis bu ñu yeewoo suba kat ñoom ba ñu wutaat doole yegg ci suñ kaw danañu rey ñu dee benn yoon noonu keroog faat nañ ci yéefar yi loo xalim boo xam ni yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala ci bari waat madame Diouf boobu moom daanaka julli ñi nooy neex lañ defoon yéefar yi xam ngeen nooy neex nooy neex di labbali dem rek di labbali rey nañ ci ñoom dañuy wëkkat daw ak seen général parce que ñoom lan jàpp moom mooy lii moom mësee su koo gis noonu borom bi subhanahu wa taala dogal Xaalid daal di gañe ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon gars yi daal di tourné nag kabaar yi nga xamante ni ñoom lañ doon kabaar bari lool ndax bokk na ci li leen yéemoon ñoom dañuy ñetti junni nit su dee dëgg la ñoo leen gañe woon ci juróom-benni fan yi waaye balaa ñu leen a gañe metti na ci ñun lool su fekkee ñetti junni nit lañ sonn doon leen di gañe kon xamuñu lim bi topp ci ñoom nu mu toll kon nañ daal di daw bi ñu dawee Xaalid daal di leen topp radiyallahu anhu wa ardaa noonu ci la Xaalid daal di tourné ñibbisi bi mu ñibbisee gis nga ko jigéen ñi di sëllëx góor ña suuf yéen ay tàppet ngeen yambar yi ngeen doon antumul karraaruun góor googu dem xare nan day daw yeneen bi ne déedéet humul karraaruun gars yi dañuy wut si doole lay suubi farraaruun ñii koy dawuñu mukk te it loolu ci stratégie guerre la bokk borom xam-xam dañuy wax ne ku xam Xaalid ak ni mu jàmbaaree ak fit bi ak ñemeñ gi ak li mu réalisé tey ba nogg te gi ñu leen defoon si juróom-benni fan mu fayee ko si juróom-ñaareel bi la muy wane mooy ku ñemeñ ci xam li muy def moo man lii waaye nag comme ñoom renfort du leen yomb te loolu yàgg naa am ay yoon yoo xam ne ci xaadis yàgg ci fenn fenn foo gis bi lu ñu dañ leen di yónnee li nga xam ne si mooy renfort amma Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mawqifuhu fi fatxi Makka kera fatxu Makka xam ngeen fatxu Makka ñu bari dañoo defee ab xare la woon déet du xare de yonent bi dafa ñëwoon pour tijji Makka ndax booba nekkul woon dëkk jullit waaye dëkk bi yéefar la woon dëkk boobee nga xam ni jullit ñi yàgg nañ faa sonn ba daw génn am ñu ko def mbir ma metti lool yonent bi saa sallam di ñëw mu ne ko dugg kër Abu Sufyan bu ko kenn laal ku dugg kër Arqam ibn Abi Arqam bu ko kenn laal daal di woo Xaalid ni ko jiiteel mbooloo mi woo Zubayr ni ko jiiteel mbooloo mi ci des Xaalid yaa fi gën a gaaw a xeex waaye tey moom bul xeex loolu la ko yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam Xaalid yaa fi gën a gaaw a xeex nag waaye tey xeex taxu ñoo jóg bul xeex te moo ne bis boobu Xaalid xeex na mooy waaye nag xeex gi nag du woon bëgg a xeex maam mooy ndigalu yonent bi déedéet yonent bi ni ko xaalis mu ni ko wallahi moytu naa lu ma man waaye comme dañ ma doon jaay doole nag du ma du ma seetaan ñu may jaay te wax na dëgg ndax yéefar yi bi ñu ñëwee ne yégee ne yonent baa ngi dugg si biir Makka yonent bi jox xaalis ni ko duggeel porte sangam Zubayr duggeel porte sangam waaye na ngeen fexew bu leen xeex yéefar yi daal di yabal lu man ay trente et quelques personnes ñoo xam ne ay ponkal lañ ci ñoom ay jàmbaar ah ñu ne Akrimatu ibn Abi Jahl nag ñu mel ni ñoom nga xam ne ay jàmbaar lañ ni leen dogaale leen waa kër yonent bi ne leen bu leen dugg ñoom it ñu dox loolu amuñ ku ñuy dogaale ku dul Xaalid bi ñoom mënoon nañoo dem sax dogaale ji kenn waaye Xaalid ñu dogaale Xaalid Xaalid ne leen xeex taxumaa jóg te loolu la ma sama yonent jàngal xeex taxumaa jóg nee na am ku commencé sànni fett ma ne ko bàyyi li ngay def xam nga moom la olof yi tuddee ruux ruux gaynde xam ngeen ruux gaynde xam nga loolu daanaka mooy rey sa bopp rek am ko sànni fekk xaalis ni ko bàyyi xam nga gis nga moo tax léeg-léeg mën ngaa dajeeg nit ndeysaan gis ngeen ñu jàng aar léeg-léeg dañuy faral di yéex a xeex ndax dañuy bañ a def musiba da ngay wax ak nit mu ne la sa waay di yembar yembar lu fekk na yow kii mën a laal lem léegi dugal ci poosam yóbbaale moo tax da ngay cey tey tey def daan am na benn waay bu ma mos a ne tey da koo dal ci jigéen la dajal jigéen aba prante la sawaay daje jigéen ci sawaay di wax ak moom mu naan ko nangam nangam di wax ay wax ndaw si wàcc duma ko ba jaaxaanal ko ci tali bi nit ñi dañoo yéemu ñoom ñëpp ah moo tax gis nga sa gawaay yaa xafaayaa de affaire yi léeg-léeg day làqatu de moo tax di moy sundi ko rek moo gën a wóor ndaw si da koo dóor ba tëral ko ci digg tali bi mu jaaxaan da ngay def naag nga tey xaalis ni ko yee baal sa li ngay def waa ji commencé gëree gëréeru rek xaalis ba ci jaas bi keroog xaalis da leen a duma duma duma te léeg-léeg muy def moom aajo sax mbooloo maanaam day mel ni moom kenn nit ci boppam mën naa duma fanweer yëpp ñu dem seen yoon. xam ngeen suufay bi noonu la meloon gis ngeen keroog ba muy gàddaay newoon na gars yi bu ngeen nekkoon téeméeri gis ngeen yore téeméeri fet ma yore téeméeri fet xaw ma luy xew waaye sama téeméeri yëpp moom dina jam kenn benn dal bu nekk dana jam kenn ci yéen ndax xam ngeen ma yéen. kon ñoom noonu lañ meloon ci man nga war man fet man xeex. loolu bi mu amee Xaalid daal di xeex ak ñoom rey ci ñoom dix huit personnes ba vingt huit personnes ba yent bi yégee loolu dafa mer mu ni Xaalid lu tax nga xeex mu ni ko wallahi moytu naa lu ma man teere naa leen songoon na xeex sax ma ñu dëgër fit man nag du ma nekk góor gu yaakaar ak ñu may tong may toog di xoole wax la dëgg noonu yonent sa daal di dugg ci fi nga xamante ni mooy Màkka ña dee moom perte nañ charaf moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni bi Xaalid duggee ci lislaam mboolem fu ñuy wax buntu jàmbaar koy Xaalid dafa yebal xam ngeen am na comme duñ wax yàlla yaali la ñuy wax yaali di ne di suñu borom di tudd ci biir wan naj mi afaraaytum allaata wal uzza wa manaata thalithata al uxra a al uzza benn yàlla la woon wala yaali boobu yaali sax la ñuy wax yaali di ñuy jaab bi nga xamante ni am nañ fatxu màkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xaalid yow rek laa wóolu ci yónne na ci laata ak uzza nga faagaagal leen laata ba Xaalid bi muy ñëw Abu Qatada nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax Xaalid ni ko demal Xaalid nee na bi ma yeggtee yonent bi nee na ko gis nga boo yeggee ba foofa sa biir xamb yañ naan fala laata nekk ak Uzza boo ne cëpp dina am benn jigéen ju gàtt ju ñuul ju ñaaw ju génn ci xaaral xawaru bopp dina la song bu nga bàyyi ko xel la hawla wala quwwata illa billah xoolal rek loolu xam ngeen waxyu min Allah subhanahu wa ta'ala jigéen ju gàtt ju ñuul ju ñaaw te xaaral tawaru bopp mu ni ko dana la song loolu boo ko waxoon kenn ci ñun rek balaa dem rek di commencé rap rap yi kii jigéen ju gàtt ju ñuul ju ñaaw ba pare su xaaral tawaru bopp ñemeen song ku mel ne Xaalid loolu da ngay ragal sax bala ngaa dem Xaalid daal di yeggsi radiyallahu anhu wa arda bi mu yegsee nee na na ma ko yonente bi waxee ne lam faf sax nag ma gis ci ponkali ween yoo xam ni sol na ni bopp loolu loolu ndax kooku ndax nit la nee na ween yaa ngi ni sadd ween woo ci gis kon na ni bopp nee na ma ne yaa uzza kufraanak laa subhaanak inni raaytu allaha qad ahaanak yow yaay uzza ah yow yaa may song wala ak bi mu àndal amul lu muy jiit yaa Uzza yaa may song si kufraanak weddi naa la laa subhaanak duma la mat a sellal tey la la yàlla def lu bon tey la la yàlla xaram rek song ko buñ ko songee rek fanq haaba bi fanq xarbam bi mu wadd yonent bi salaa sallam ne woon na ko kooka boo ko rayee rek xamal ne Uzza jeex na Xaalid daal ni zahabat al Uzza al yawma fala Uzza baada al yawm gis ni que tey Uzza dee na bu leen jaamu tam leen xàmb yi gars yi kat xàmb yëpp diggante jëf ju mel nii ak fekk poson mu naan ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ni am na benn xare boo xam ne jullit ñi dañoo wër ndomba yéefar yi ay weer dana ñëw amuñu fuñ mas a ja mën a jaar xaalis xalaat stratégie bu mu am ci guerre def na ko mënul jàll xam ngeen nu mu def ci iman ga mu jël benn fooy bind ci benn lettre mu ni yéen ñii ci biir xunt mi ci biir tata bi man Xaalid maay wax ak yéen ci jileen bunt bi wala bu ngeen ko defut yàlla dana leen xam nga bunt bi day kawe tata bi muy yàlla dina leen taw wala yàlla naawal ñu fekk si leen jël leetar bi rek pëtëxal ko ci benn pax foofu ci seen biir général bi ñu ko gisee dafa ciit ci leetar ba tijji bunt bi te xamut lu ko ko tijjiloo moom loolu mooy tam rek xam ngeen Omar ibn Khattab ci nahrul Niil xam ngeen keroog bi jullit ñi ubbee Égypte ak mu jot ci Égypte gi gi ñuy tuddee niil muy jex gi dañuy dugg ci dëkk bi seet jigéen ju rafet miisu at mi ñu jël ko sànni ko ci biir géej gi mu dee pour géej gi bi ñu yàqal atum rek xoolal ñu si def yi ñuy def at mu def ay at ñu di ko def Amar ibn al-As nee na bi ñu ubbee Misra ma yónnee ci Amar ibn al-Khattab ab leetar ni ko ñun kat ubbi nañ dëkk bi waaye am na lu ñu jaaxal lool mooy ni ki di ko histoire bi Amar ibn al-Khattab daal di jël leetar ni bismillahi arrahmani arrahim leetar bi mi ngi bàyyi koo ci jaam ak yàlla bu ñuy wax Amar ibn al-Khattab jëm ci yow dex gi bu fekkee sooy daw da ngay daw ci sa coobarey bopp téel sa daw soxlawuñ ko su fekkee yàlla moo tax ngay daw ma ni dawal leetar baa ngoo Amar ibn Laas nee na bi ma ubbee lettre bi dama ne Omar xanaa xel mi dafa neexul da ko jox lettre bi ni ko nee ko bu xëyee na dem tàbbalal ma ko ci dex ga gis nga gis nga iman mbokk yi ci boppam iman day def xawaariqul aadaat iman mën naa def loo nit ki loo xam ne kenn musu ko gi Amar ibn Laas ñoom comme ñu déggoon ndigal lañ ku jël lettre bi rek tàbbal ci biir dex gi ñu leen bu leen def seen aada jooju borom xam-xam yi nee nañ géej gi da daan ñiis bu fekkee dugaluñ ci xale bu jigéen ba nee na keroog yokku na ba yokk lu mat fukki xasab ak juróom benn ci jour biñ fa sànni leetar ba ngir wane ñëmewul sa niis waaye ndox ma daa yokk fa loolu nag loolu nag martaba ju kawe la ci iman loolu mooy tam rek la waaja waxoon yow sunu borom kii lebal na ma bëgg naa koo fay aw ma fu ma ko fayee xaalis baa ngi nii jox naa la ko yow yàlla daal di koy dugal ci bant xat bant ñoom di sugal sànni ko ca géej bant bi tollox tolloxi tollox tolloxi ba yegg ca kañ ko war a jox maanaam yëgal ni yii buñ ko nekk ni bu nga jàpp ni maanaam nit ki da koy dégg parce que war ta mën a nekk salata ibni asham war na am mbaamam xare ji ba tourné mbaam ni faatu mu ne yow yàlla man damaa jaayante woon ak yow ni soxlaa lu ma doomu aadama dara lu may ñaan yàllaa koy ñaan sama karwaa sax bu waddee ku ko nar a for dama nan ko bàyyi ma wàcc faral ko sama bopp bu ma soxlaa lu ma kenn leen même karwaasu mbaamam su waddee nga di ko faral danaan tegaat ko foofu ba faral ko sama bopp soxlaa lu ma kenn leen bi mbaam mi dee mu tàllal ay loxo mu ñaan yàlla suñu borom dekkalal ko mbaam mi mu war ko nit ki bu ko dégg mu jàpp ni saxaaba ci kii nu kii moom sax du saxaaba sax taabi ci taabi aw ni la bokk lim lay wan mooy yooyu mi ngi mën a am ba tey ndax fii bokkul ci saxaaba yi misaal yu mel noonu boo ko toppoon da ngay lim lu bare bare bare bare bare ay mbir yoo xam ni kenn taani suñu borom la yu lay wan ni nit ki kat bu àggee fenn fi ci ngëm yàlla ak dëggu bu ñaanee borom bi subhanahu wa taala suñu borom da koy may fil aajil ci saasa kon Xaalid loolu bu dikkee ci Xunaynin tamit gis ngeen ko yawma Xunaynin id ajabatkum kasratukum ah keroog Xunayn julli ñi dañoo xool seen bopp daal ni tey de moom nag lan nuqra bi lan nuqra la min kasra tey moom kenn duñu gañe ndax bari waay yàlla dogal ñu duma leen duma yu nit ndax musiba jooju wax moo tax lan ñu baaxul de lii léeg-léeg rek mooy li musiba ñoo gémmiñ seen bopp di moo tax naa lay wax li nga ñu bëree bëri da ngay jéggi ñu naan làmmañ làmmañ làmmañ fekk nit ki dana génn ñu boppam te du ko yëg nit day gémmiñu boppam te du ko yëg te xam ngeen ne làmmiñ moo fi ma dafa am soote baaxul làmmiñ ak bët benn bu ci nekk dafa am sooke dafa jar di muslu moo tax da ngay gis nit ñi léeg-léeg njàngale yi sunna yi boo ko bàyyiwul xel rek musiba am dinaa koy jox sama mbokk jigéen ñi léegi ii yow sa doom ji daa rafet daa am poids nga xëy xale bu feebar loolu day am de lu amul ci jullit lu amul du jullit yooyu amul ci de làmmiñ ci boppam dafa am sooke nit ki mën naa wax benn wax ci boppam rek gémmiñu boppam sama daal yooyu kay tey nga jaar fii rek daal ñu cëpp dagg doo xam sax lu ko dagg am na benn gone gu mos a ñëw daal loo bees sax mu indi ni ma daam ku bàyyi ba guddi ci daara bi mu lancate ko ma ne ko est ce que du gémmiñ ñi ko yàq ko daa mel ne du lancat bi lu mel noonu nag nit bu def lu ñëw rek nga jiñ ko la ca def maanaam làmmeñ ci boppam dafa yàqal doomu aadama keroog Xaalid ibn al-Walid malgré que li jullit ñi sonn sonn def na ci ay jaloore loo xam ni yàlla dem na ba gaañu na ay blessures yu metti ba ñu wutal ko xëy na mu dugg ci ah Abdourahman ibn Azhar mu ne gis naa yonente bi di laajte ana Xaalid ana Xaalid ñu ne ko mën nga ca xayma jëlee muy dem na ba fekk ko fa mu nekk maa ngi yaakaar ne sax keroog moo ko tuflil ci góomam blessure yi mu am daal di koy ñaanal kon yii ay tënk tënk la woon rek ci dundu Xaalid amaan na bind bii di ñëw ak ba ca topp yëpp dama koy continuer dundu Xaalid ndax bind la boo xam ne jàpp na ni kolewu gi am na ci solo lool di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq yàlla yàlla yërëm saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yàlla suñu borom delloo suñu mbooloo moo xam dañu leen roy ci njub ga dëggu ga wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain